Yes, yes, yes. will walk. La li ba jàmm la. yow yow yow bi li ba jàmm la. li ba jàmm la. kii du Wally balaa ko sëkk. kii du Wally. avec du fromage bu mag bi. wël boot. wël boot. ñëwal. ubbil ma deuxième. ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal. ñëwal ñëwal ñëwal. waay sa waay ubbil. ubbil ñëwal. ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal. j'ai une surprise pour vous ah. surprise surprise. la surprise a ses plaisirs. ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal. ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal. ñëwal ñëwal. yes. nii baax na. may ma loolu for na bàyyi. bàyyi loolu neex na. moo tax na mu ngi ko gis. laa ilaha illallah golden boy de la musique sénégalaise. waaw waaw. doomu golden boy. waaw waaw. jëlul boot di la ilaha illallah def si na bala jëlul boot la musique sénégalaise bul boot gërëm fekk. Eh, waaw mais sama xarit. ndeysaan kontaan ci ñoom. ca bañ ñee la. bu la neexee